asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gën a rafet a sell di leen ziar waaye itam di leen xamal ne tey nag euh, débat de la rédaction ñi ngi am na gan gu mag ñu di ko wax maître Assane Dioma Ndiaye di avocat à la cour waaye itam nekk président bu ligue sénégalaise bi nga xam ne moom mooy saytu ak ak yelleefu euh, doomu aadama rawatina ñi yeewoo ci biir réew mi euh, moom itam ba léegi ne bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy défendre. Euh, victime yi nga xam ne dañoo lor woon ci euh, affaire abré, euh, maître ñi ngi lay dalal. maa ngi leen di maa ngi lay fay Ali di am contenté di doon invité tey télévision RTM donc muy mbégte bu rëy ci man. Euh, maître démb amal ngeen ndaje ak taskati xibaar yi doon waxtaan yéen ak ñi nga xam ne ñoom ñoo loro woon foofu la ca Tchad ci mbir moomule euh, euh, yéen lan ngeen di laaj ci wàll woowu. waaw donc ni ngeen ko xamee Sénégal xeex bi yàggoon na trop parce que victim yi dañu jàppoon ne bi mu rëññee ci 82 ba 90 faat na fa doomu aadama lim bu takku ba ñuy wax sax juróom-ñeent fukki junniy nit. parce que am na rapport bo xamné bi mu dawee juste lañ ko défar société Tchad yépp bok ci bi mu dawee ñew Sénégal nag xeyna lool mo ci duggal Sénégal lool mo ci duggal organisation défense droits de l'homme yu Sénégal parce que bu ñewul won Sénégal xeyna duñ ci duggee ni xeyna wa waa ñokoy ñoo sen bop seen bopp mais ni nga ko xamee euh, mbootaayu xeet yi dañu def benn principe moy compétence universelle moy lepp lo mun di def daw jaww ji du la tax même boo ko defeewul fi nga làqatu dëkk bi nga laqatu mun na la àtte surtout que am na convention yoo xam ne Sénégal signé ne ko comme convention 84 bi nga xam ne dafa tere torture euh, ku bund xatal doomu aadama te boobu li convention bi wax mooy état bu ko signé képp ku ñëw laqatu sa dëkk te ñu jiiñ ko mbiru torture foog nga àtte ko mbaa nga jébbal ko beneen réew mu war a àtte ñu nekk ci xeex boobu am na péripéties yu bëri duma ci ñëwaat ba tey Euh, ñu am accord boo xam ne entre Union africaine ak Sénégal boo xam ne teg na li ñuy wax tribunal euh, africain tribunal pénal international africain ay chambre africaine ñu dugal ci juridiction sénégalaise yoo xam ne tey moo war a àtte monsieur Sénabré ci kaw loolu lañ ko téyee inculpé ko bu ñu waxee inculpation dafa am benn juge d'instruction ñu tuddee ko chambre d'instruction boo xam ne nag léegi moo war a def benn liggéey bu am solo liggéey boobu mooy seet ndax li ñu toppi Sénabré am na ay firnde yoo xam ne dina war a tax ñu àtte ko wala déet eggaguñ ci àtte bi sax mais chambre bi liggéeyam mooy day def li ñuy wax instruction instruction boo ko déggee mooy da ngay seet à charge et à décharge maanaam loo yaakaar ne mun na tax topp bi am da nga koy génne boo gisee aussi loo xam ne yaakaar nga ne war na tax nga ne topp bi daal jaru ko danga koy génne boo paree ci liggéey boobu nag ngay seet ndax yow war nga jébbal dossier bi àttekaay bi wala déet ci kaw loolu nag ci la victime yi ñëwee. pour d'abord daal di dëggalaat seen de partie civile wane ne ñoom ñu ngi dëggalaat top bi ñuy topp monsieur Senabré ñaarel nak chambre yi aussi fekkone warna jël waxu victime yi ndax bo porté plainte dañuy jël sa wax cette pièce yi nga am lool motax nak altiné bi passé ba légui victime yaa ngi ñëw Sénégal ñu defone point de presse nak pour gën réralat sénégalais yi ci ñëriñu procès bi mais aussi gëdd bi procès bi wara am tay cest du procès boo xam du procès Sénégal procès Afrique la procès doomu Afrique yi la ñu war cee jëlee ay jàngat yu bëri nag loolu moo taxoon ñu def conférence de presse boobu. Euh, mais yéen da ngeen jiyoo ak euh, yeneen avocats yu après yi ndax ñoom dañoo fas yéene boycotté euh, boobule procès waaye yéen dafa mel ni da ngeen nangul chambre africaine boobule. waaw dañ ko nangu parce que loolu lañ doon laaj en fait mooy naa àtte am parce que li ñuy wax ci doomu képp koo xam ne mu ngi jooy ne. def nañ ma nangam nañ ko àtte boo seetee Sénégal xeex bi ñu fi sumb muy dossier bateau le Joola muy dossier ay Kékouta Sidibé bi ngay dégg ay Dominique Lopi ay Ousseynou Seck xale yi fi faatu at yi yëpp dañu teg nekk seen wet di xeex ak ñoom pour li ñuy wax ne na àtte am pour àtte am parce que àtte bu amul ki nga xam ne dafa jàpp ne dañ ko euh, tooñ victime la boo ko àttewul da nga koy gën a lor te li nekk ci xolam du mës a dëñ bu doonee koo xam ne dafa ñàkk ay waajuram du mës a def li ñuy wax dëj boobu tànkaate wuñ ko moo taxoon procès boobu ñu topp ci li ñu buggoon ñun mooy Sénégal atte ko ci kaw ay jumtukaayu boppam parce que Sénégal am na convention yoo xam ne ratifié na ko mayoon na ko mu atte ko ci kaw ay jumtukaayam mais li ci am nag mooy tey Union africaine moo ne kii doomu Afrique la du ma bàyyi tubaab yi atte ko ndax Sénégal bu attewul woon dañ koy yóbbu Belgique Union africaine nag ne balaa loolu di ci am man damay fexe ñu ko Afrique moo tax nag bii Sanabré dawee cour de justice de la CEDEAO ne man Sénégal bu ma àtte cour de justice jox ko dëgg ne ko yow Sénégal du la àtte ci kaw ay juridiction ci kaw yoonam mais dafa lay àtte ci kaw tribunal boo xam ne tribunal international la boo xam ne même juge yi bu ñu doonee ay sénégalais Union africaine moo leen di tànn donc juge yi fi nekk tey ci seen carte d'identité sénégalais lañ mais ci liggéey bi ay africain lañ donc muy procès boo xam ne ñun méngoo naa ak li ñu na procès am mais procès boobu si ñu teg ko ci yoon droit yi seen ñu respecté ko parce que loolu boo amul mun mënuñu wax procès. yéen mën ngeen am eh, am mën nañu am yaakaar ne eh, procès bi dinañ ko jaarale yoon dina am maanaam procès bu équitable. Ah, parce que procès moom justice bu fekkee ne yow yow mel ne da nga indi justice bu fekkee da nga dugal injustice daanaka mënatuñoo wax procès donc ñàkk bañ a respecté yelefu Hissène Habré kenn xalaatu ko seen Habré dina may avocat yu ko taxawal tuuma buñ ko teg dinañ ko may mu teggi tuuma bi parce que loolu mooy procédure équitable kenn du la tëj te àtte wuñ la te balaa ñu lay tëj dañuy indi firnde yu leer yoo xam ne kenn mënu ko wékki donc loolu dina am ci procès bi kenn du ko bund xatal avocat yi boobu am bëggoon ñaar fukki téeméeri avocat dina ko am lu mu bëgg a wax dina ko am même témoignage de charge maanaam ñi nga xam ne boo leen indee dinañ wax ne seen abré lii defu ko yow sa bopp yaa leen di tànn ñoo xam ne dañuy ñëw daal di la setal lool sax may nañ ko ko tey donc loolu dina wane ne intérêt ñëpp la tey procès bi doon procès juste équitable parce que procès bi bu justul Afrique dina ci am problème parce que ñëpp tey ñu ngi xool Afrique naan Afrique tey est-ce que mun na àtte ndax tubaab yi ñu ci bëri ak sax nit ñu ñuul yi dañu jàpp ne Afrique xamuñu justice boo gisee doomu Afrique yi ñu fi àtte at yi yëpp ay Jean Pierre Bemba ay ñu bëri cour pénal international lañu leen donc tey justice nationale yi boo gisee Sénégal yeneen dëkk yi ñu bëri def nañ fi ay mbir yu doy waar kenn àttewul leen ñu laqatu ci ginnaaw régime politique yi donc tey Afrique dafa am benn challenge boo xam ne am na ko mais victimes yi aussi dañu laaj loolu àtte bi mu leer parce que dëgg lañ soxla te dëgg bu àtte bi leerul dëgg mënut a feeñ donc ñëpp war nañ jàpp tey ànd d'accord ci ne procès bi moom dañ koy teg ci yoon mu doon procès juste équitable. maître mbootaay yi nga xam ne ñoom ñooy xeex ak ak yelefu doomu aadama dañu leen joxoñ baaraam di leen wax ne kat ñoom euh, daanaka dañoo des ginnaaw ci wàllu woowee rawatina jamono yi nga xam ne teg nañu loxo euh, Hissène Habré soxnaam sax dem banaan euh, moom daal jaarul yoon mbir mi. ban commentaire ngay def foofu ndax xam nañ yow défenseur première heure nga di militant bu droit de l'homme waaw yaakaar naa ci côté ginnaaw bi ñu fi jàppee Karim Wade ci anam yu mel noonu ñëpp ñu dégg ndax jàpp nañ ne doomu aadama lu mu mun di def danga koy ormal boo koy téyee jarul nga indi ay camion GIE LGI ay gendarme yu dul jeex waa këram jaaxle waa koñ bi jaaxle da nga koy woo ndànk ci sutura ne ko kaay wuyu yoon daf la soxla convoqué la ci kaw Sénégal nag li ci xaw a am particularité mooy chambre africaine yi ñoom ñoo joxe ay explication ñoo ne boo gisee ñu doxalit nii d'abord ci biir Wakaam ñu bëri taxawoon nañ ne Hissène-Habré bu ñu koy jël si dina indi coow ñaareel bi Hissène-Habré ci boppam am na menace yu mu defoon ne man bu may jël si te ñëpp xam nañ ne homme d'honneur la parce que homme de guerre la Hissène-Habré daf doon xeex te combattant ñaareel du nangu ñu jàpp ko day am na leneen loo xam ne dina mun na ko def lu gën a ñu jàpp ko donc chambre africaine yi bi ñu joxee ay explication ci li tax ñu daal di doxale noonu loolu moo tax sax wax yi ñu ci waroon wax waxuñu ko mais maa ngi dëggal na ñun ci xeex bi ñuy xeex dañu jàpp ne doomu aadama boo koy jël si ci yoon na nga koy ormal convoqué ko mu dem wuyu mais jarul nga koy toroxal jarul nga koy traumatiser li ñuy wax interpellation psychotraumatique dañ koy xeex te loolu aussi yaakaar naa duñ ci dellu ginnaaw mais dafa am leneen loo xam ne lii itam day xaw a ñuul ci biir soow mi ndax euh, euh, président Déby euh, nga xam ne moom mooy njiitum Tchad dossier bi dañoo jàpp ne moom sax bokk te ñi ko financé bu baax ndax buñ ko xayma ci koppar yegg na ñaari milliards ci xaalisu CFA nee nañu itam dafa décréter journée chemin et paix Euh, ci ca réewam bi ñu jàppee Hissène Habré yow euh, mbir moomu lan nga ci mën a wax. waaw li ma ci mën a wax mooy foog ñu xam ne Déby dafa nekk ci agenda am day xeex ak isen abré ñun xeexuñu ak isen abré ñun justice la ñu soxla justice nag boo ko soxlaa doo du vengeance du fayante te du jéem a toroxal doomu aadama li ci nekk mooy état Tchad moo joxe xaalis état du Sénégal joxe na. France joxena na Amérique joxe na Allemagne joxe Canada joxena donc loolu bokul ak début dara bëgguñu ñu daal di personnifier état bu état du Tchad joxe ñu ne début moo joxe dafa indi ay xel ñaar ci procès bi motax aussi ñu avocat yi Sénégalais yi xëy na loolu moo soxal tay ba ñu gëmloo nit ñi ne début mo joxe xaliss bi mais début joxewul état du Tchad mo joxe te loolu aussi japp nañ ne lu jaadu la état Tchad mënul won baña kalis, joxe xaliss parce que ay doomu tiad ñom ñoy daw ñew Sénégal bëggu ñu atelen Sénégal mi nga xam ne sax daanaka mën nañ ne euh, du ndeyu mbill bu joxe xaliss état bi nga xam ne fa la ay juni juni doomu adama soso mën ta ñaka baña joxe donc nañ japp ne état tiad mo joxe té nak joxe taxul nga am baat ci procès bi Sénégal bu joxe état tiad joxe taxul ñu ne ñom mën nañu fexé ba procès bi démé ci benn wet wala beneen wet ay juge ñooy até té juge yi bu ñuy dañuy wat té bu démé bay jël décision décision bobu dañ koy teg ci sen conscience ki até bu até tey dañ koy até wat suba donc nañu bàyyi di wax né début joxé na xaliss début yor procès bi parce que début tey procès bi mun na dem ba mu procès bi dab ko parce que ay fee la até dañu né de 82 à 90 képp ko xamné ne sa loxo laal na ci rek mun nañ la top tey Hissène Habré la ñu visé gum am na ñeneen juróomi nit ñoo xam ne ñoo nekkoon DDS parce que il faut nit ñi xam ne DDS mooy police politique bi nga xam ne ci la Hissène Habré doon sukkandiku képp ku ñu yaakaar ne rek yow noonu Hissène Habré nga dañ lay jàpp dem torturer la faat la te loolu ay documents yu leer lu ko indi. maintenant nag bu ñu demee ba keneen feeñ ci muy début di keneen ñun buñ ko ci dugalee loolu gêné wuñu mais encore une nouvelle fois début la def ay décrété jour férié loolu problème am la. xëy na moom day xeex loolu amul benn influence wala impact ci procès bi nga xam ne ay magistrat professionnel ñoo ko yor di ko doxal Sénégal. Euh, mbokk yi ñu fàttali leen yéen ngi suivre seen débat de la rédaction dalal tey nag maître Assane Ndioma Ndiaye maître ñu am na ay baat yoo xam ne mi ngi jib di sàkku abrogation article 80 bi nga xam ne daanaka moom moo yóbbu fële ca euh, prison euh, opposant Bara

examen périodique universel si maître Madické le défendu défendre Sénégal mu naan ONG Sénégal ya nga dé maa ngi di gis ñu wax def rapport ñun wane ne article l'article 80, nañ ko dispositif droit Sénégal parce que kuñ ci bëgg a dañ la bu ko procureur le tudd juge bi amatul pouvoir d'appréciation buñ né diw nañ ko top ci article quatre juge bi mënu ci dara xam nga article dem ba juge bi loo ci bëgg a dugal nga dugal ko ci day doon loo xam ne day mun a nasaxal démocratie liberté d'expression donc tey aussi ñu ngi ñaanaat autorité yu bees yi nañu respecter seen engagement parce que démb ñoom ñoo fi nekkoon di jooytu ati 80 tey nag mënoo ñëw pouvoir da nga doon xeex tey tey nga bëgg koo dëggal donc ñun en tout cas si suñu wàll xeex la boo xam ne dinañ ko gën a sumb ba ati 80 jóge fii liñ ciy wax nag mooy ati 80 li muy tere wala li muy daan am na yeneen article yu koy daan ci code pénal bi tey képp ku jóg song président de la république wala nga toj dëkk bi am nañ ay dispo ay article yoo xam ne mun nañ la daan mais article 80 bi li tax ñu dugal ko suñuy dispositif France dindi ko États-Unis dindi ko de démocratie yu mag yëpp da ko ci dugaloon rek pour ku ñu bëgg a duma ñu duma la loolu nag boo demee ba démocratie toll fii nga téye ko ci sa ci sa droit day doon lu doy waar donc xeex la boo xam ne duñ ci mës a jóg. xalaat ci euh, loi Sada Ndiaye ndax euh, Sénégalais daanaka dafa mel ni noppeeguñu pour jox euh, juróomi at ki nga xam ne moo di président assemblée. parce que ñun bëgguñu particulariser débat institution dañu bëgg démocratie li koy lal mooy ay institution yu forte yàlla def na am na benn commission bu ñu mettre en place pour réfléchir ci yan institution yan réforme institutionnelle la ñu war a indi. li ñuy ñaan mooy ci kaw réforme yooyu nañu xool lépp loo xam ne day dëgëral démocratie sénégalaise ñu dugal ko ci bu fekkee ne tey juróomi at yi méngoog mandat député yi moo gën ci kaw waxtaan woo xam ne day am consensus wala le plus large parce que démocratie kat kenn waxul ne mooy unanimité maanaam ñëpp a ciy ànd mais lu ëpp ci doomu aadama yi li ci gën a ëpp buñ ci àndee rek loolu war na mun a engagé ñëpp waxtaan woo buñ ko defee muy mandat Euh, président de l'Assemblée nationale muy de même débat politique chef de l'opposition parce que le problème est de faire si suñu démocratie est en retard boo demee yeneen Afrique yi statut de l'opposition Le président de la République doit recevoir le chef de l'opposition mais le pouvoir politique De l'opposition, comme Khadija Mousse, nous avons une démocratie amul dialogue amul dara Nous avons une institution en matière de justice réforme conseil supérieur de la magistrature conseil constitutionnel bi pour ñu mun di défendre muy mëna juger liberté individuelle liberté fondamentale donc amna réforme yo xamné yépp war nañ ko sóoraale mu don nak lo xamné day cohérent do jël fi ben jël fële ben buñu poser simplement débat mandat président assemblée nationale dañ ko dugal ci ben ensemble bo xamné ne naka waxtaan lal abadu waxtan bo commission bu paré nañu permettre sénégalais ñu waxtan ba juboo ci cadre ci yenn institution yo xamné tay jàpp nañ ne mënatul a ñàkk pour suñu démocratie avance. Euh, mais beneen pàcc boo xam ne bu am solo la mu jëm ci euh, euh, li nga xam ne moom mooy xew léegi ci wàllu agression di faat ay doomu aadama. te teguñu ko fenn te du mujj fenn daanaka ndax bu ñu leen tëjee du yàgg dara ñu génnewaat leen ñu continuer di dox seeni soxla ndax yow da nga yaakaar ne bu ñu indiwaatee peine de mort ku rey ñu rey la loolu delloo ginnaaw démocratie la. waaw li ñuy njëkk wax mooy peine de mort Euh, moom amoon na fi am na fi ba léegi teewul crime yi mu ngi am ñaaw teefu bu ne mu ngi am ci crime États-Unis la ñuy rey ci peine de mort kenn xamul ñaata mais teewul dañ ñi mu ngi am crime mais jamono dafay dox ba li ñuy wax yelef ak doomu aadama nangootul doomu aadama jàkkaaroog doomu aadamam di ko rey ci tayefam c'est-à-dire ñi koy def dañ leen di jàpp mais état waru ko def te peine de mort mooy may nañ état muy faat ay doomu adama te buñ koy def ay militaire lañuy jël jox len ñi ay bal réel ñi ay bal bal bal blanche wala ñu jël pikir pikiir la nga faatu wala ñu jël posoñ jox la ko wala guillotine dugal sa bop ci benn machine dag ko loolu tey droit international moko nangotul même état yi nga xam ne tey abrogé wuñ peine de mort même ku ñu condamné à mort ken dula faat dañuy def moratoire parce que xam nañ ne mbootaayu xéet yi ñoo nangotul doomu adama di faat même ci kaw force publique di faat moromam léegi li ci des nag mooy ñëpp a naqarul li am insécurité bi faat yi ñuy faat xale yu jigéen yi di leen violer di leen rey moo tax ñu jàpp ne bu weesoo peine yi nga xam ne am na te bi ci gën a doy waar mooy perpétuité am na yoo xam ne tey boo ko defee dañ lay tëj sa giiru dund maa ngi rappelé ne faat yi fi mujj am képp ku ci dem cour d'assises magistrat yi ma xam dañ lay tëj tëj boo xam ne dootoo génnati ba sa giiru dund xëy na am na ñu ñuy tëj juróomi at fukki at mais loolu bokkul ak yenn façon faat yi ndax rey dafa bëri ay façon am na ñoo xam ne rey nañ defuñu ko ci tayef am na ñoo xam ne buñ ko defee itam jéglu nañ ba nga xam ne société bi yaakaar na ne ñii mun nañ leen a récupérer buñ toogee kaso ay jamono war nañ leen indiwaat am na ñoo xam ne nag dañuy jàpp ne ñii moom bu ñu yeboo rek dañuy wax mort sociale tëj leen seen giiru dund donc am nañu ay dispositif yoo xam ne tey war na mun a tax ba ñi nga xam ne ñooy def crime yooyu ñu daal di leen daan proportionnellement loolu mais li may wax mooy pouvoir politique moo war a seet lan moo tax ñu teg ko mooy assurer sécurité citoyens yi parce que ki nga xam ne mu ngi dund yaakaar na dara ci àddina bi àddina moo koy gënal kaso mais ki nga xam ne yaakaaratal dara ci dund bi rey nit ñu yóbbu ko tëj ko giru dundam di ko jox añ di ko jox reer di ko jox ndékki moo ko gënal mu nekk ci biti donc tey di yëkkuraat sénégalais yi am na ñoo xam ne toll nañ foo xam ne amatuñ yaakaar ci dund bi mooy tax yenn yi di am donc ñuy gën a ñaax autorités yi li tax ñu teg leen fii nañu répondre ci aspiration nit ñi euh, ndóol ndóol gi pauvreté bi ñu mu ñu fexe ba xeex ko euh, solidarité sociale bi mu gën a large ba képp koo xam ne lu gën a néew loo war a am pour sutura nga am ko yaakaar naa am na mesure yoo xam ne buñ ci jubloo mun nañu wàññi criminalité bi parce que suñu borom moo bind noonu àddina bu dunde bu bindee lu weex bind na lu ñuul kenn mënut a taxaw ne criminalité day dëñ ci àddina bi mais mun nañu fexe ba mu wàññee ko ba ñi koy def da di ñoo xam ne xëy na kenn munatul dara ci ñoom mais buñ jubloo ci soxla sénégalais yi wàññi li ñuy wax pauvreté bi gën a taxaw doomu adama yi yaakaar naa dinañu am solution boo xam ne

jërë ngeen jëf